asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni ñooy ànd ak euh, rajo bii di Rewmi FM Dakar 97 point 5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10 heures euh, jàpp 11 heures ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey ji seen émission euh, sociale toute la ville en parle dalal Baba Lissa Ndiaye nekk secrétaire général bu syndicat national des travailleurs en éducation spécialisée ca ministère de la justice ñu daal di fas yéene lépp lu waxtaane secteur bi nga xamante ne euh, ñoom ñu ngi koy daal di yëngutu ñu jéggalu ci euh, sax euh, yéex bi ñu yéex a tàmbale émission bi ñu ngi lay nuyu Baba Lissa Ndiaye di la dalal jàmm maa lay nuyu Ndeye Comba di nuyu mbokku auditeur u rajo mi FM yëpp mm. di kontaan ci sunu teew fii tey nekk lu ñu yàggoon sabablu waaye mm. xëy na tey la ko yàlla dogal mm-hmm. xam naa dinañ am occasion def yeneen émission mais tey dañ lay carton rouge. parce que nekk ministère de la justice ba pare tardé. <laughs> ëpp naa def ëpp naa def <laughs> yi tey jamono rek. <laughs> Mhm. Euh, tey jii ñu laaj la ci seen euh, syndicat bi nga xamante ni yaay secretaire général bi di syndicat national euh, des travailleurs en éducation spécialisée lan lañ ci mën a dégg exactement. waaw syndicat bi mi ngi tudd syndicat national de travailleurs en éducation spécialisée comme ni nga ko waxee. Mhm. regrouper ay euh, corps yu bari nag. Mm-hmm. ci am na corps bu ñuy wax éducateur spécialisé am na corps yu ñuy wax euh, les les les maîtres d' enseignement technique professionnel am na ay professeurs d' enseignement moyen am ay technicien horticole am ay lingère am ay mm-hmm. am ay euh, cuisinière mm-hmm. ñooñu ñëpp nag syndicat bi ëmb leen. ñu nekk ci biir ministère de la justice. nekk plus précisément ci direction de l' éducation surveillée et de la protection sociale. Mm-hmm. mais mais syndicat bi lan moo ko wund exactement kañ ngeen ko teg euh, lan mooy rôle am rôle seen syndicat. waaw syndicat bi ñu ngi ko créé depuis le 14 janvier 2014 lañ ko créé. 2014 mm-hmm. 2014 bi ñu ko créé nag euh, euh, dox nañ 4 ans après ñuy soog a am li nga xam ne mooy récépissé de reconnaissance. Mm-hmm. loolu nekk euh, loo xam ne nii liñ ci sababoon mooy fexe ba fépp foo xam ne nii liggéeykatu éducation surveillée am na fa jafe-jafe ñu jëm ko taxawu ba saafaraal jafe-jafe boobu. Mm. gën a dëgëral aussi suñu taxawaay ci biir ministère la justice. parce que dañu seetlu ne ci biir ministère de la justice léeg-léeg dafa am ay avantages yu ñuy joxe. Mm. te avantages yooyu dafa mel ni léeg-léeg dañ ciy bedd ñi nga xam ne ñooy liggéeykatu éducation surveillée te pourtant liggéey bu am solo la ñuy def. ci mm-hmm. biir askan wi. Mm-hmm. maanaam da ngeen gis ni dañ leen a beddi joxuñ leen seen cër joxuñ leen seen àq ak yelleef ba mu mat looloo tax ngeen samp syndicat bi. mais euh, est-ce que mën nga ñu expliquer euh, ñu xam luy éducation surveillée walla éducation spécialisée. waaw ñaari te ñaari concept yëpp presque benn la. c'est la même waaw tantôt di naan éducation spécialisée tantôt ñu ne éducation surveillée. Mhm. mais pratiquement euh, c'est la même chose. Mhm. Euh, léegi nag li nga xam ne mooy éducation surveillée benn branche la boo xam ne ni mu ngi ci biir ministère de la justice parce que boo jëlee tey ministère de la justice. Mhm. am na li ñuy wax les juridictions. am li ñuy wax l'administration pénitentiaire mais am aussi benn direction bu ñu tuddee. direction de l' éducation de la mm-hmm. protection sociale mm-hmm. direction boobu nag liggéeyee mooy exécuter la politique d' éducation de, de, de l' état du Sénégal mm-hmm. ci biir loolu dafa am un niveau central mooy direction bi mais am aussi un niveau opérationnel boo xam ni moo constitué euh, de de de service extérieur ci biir service extérieur yooyu am nañ ci li ñuy wax service AMO action éducative mm. la protection sociale en milieu ouvert mm. am na aussi ay centre centre yooyu mën nañ citer centre premier accueil de Dakar bi nekk mm. fii Liberté 6 centre sauvegarde centre polyvalent ak ay euh, euh, centre d'adaptation sociale service yooyu yëpp nag seen mission principale mooy taxawu ñaari catégorie xale mooy ñan ñi njëkk mooy ñi ñuy wax enfant en conflit avec la loi maanaam. xale ñu am voilà mm. xale bu def lu yoon tere. Mm-hmm. ñu war ko jàpp soit juger ko walla soit service AMO def médiation pénale mm-hmm. ñu bàyyi ko mais su fekkee ne médiation pénale boobu antuwul ba ñu defeere ko euh, war ko juger service bi nga xam ne mooy éducation AMO action éducation en milieu ouvert. Mm ay éducateurs spécialisés nekk fa ñoo ñooy taxaw xale bi ci jour audience bi bu ñuy taxaw xale bi souvent le juge avant de prendre une décision day laaj observation éducateurs yi ñëw mm. et le, la plupart du temps bu ñu ñëwee ñun on propose une autre alternative que la prison mm -hmm. parce que la place de l'enfant ce n'est pas la prison la place de l'enfant euh, soit c'est à l'école ou bien à l'atelier d'apprentissage de métier mm-hmm. moo tax souvent dañuy wax président d'après enquête yu ñuy def d'après lu ñu xam ci personnalité xale bi lu ñu xam ci biir cadre familial am dañ naan ko ñu ngi yaakaar ne suñ ko defoon mesure liberté surveillée maanaam jël ko delloo ko famille bi ñu koy suivre chaque trois mois ñu produit un rapport pour montrer un peu mmh. au présent l'évolution de du comportement de l'enfant mm. bu loolu amulee tamit bu ñu xoolee ci suñ jàngat gis ne xale bi milieu bi mu nekk bu ñu ko fa delloowaatee mën na am ay jafe parce que dafa amoon ay àndandoo yu koy influencé wala cadre familial am demul noonu. Mm-hmm. bu boobaa di naan président kii kat yaakaar naa ne mën nañ ko yóbbu fi nga xam ne mooy centre fermé milieu fermé. Mm-hmm. muy centre yooyu ma tudd sànq. bokk ci centre d'adaptation sociale am nañ ci benn fële à Nianing souvent mën nañ jël xale bi yóbbu ko foofu bu ñu ko yóbboo aussi ay éducateurs comme ñun ñoo fay nekk di leen tàggat éducateurs yooyu am na ñu leen di accompagner mooy ñi ma tudd sànq. mooy les maîtres d'enseignement technique professionnel. nga xam ne dañuy encadrer xale yi di leen former bu baax a baax nga xam ne ku ci génn centre rek day génn avec un métier un diplôme bu ko defee nag ñu mën a def sa réinsertion dans la société. Mhm. mais est-ce que centre yooyu xale yi euh, xam nañ ko ñu ngi ciy dem naka lay demee souvent euh, xale bi mooy indi boppam ci centre bi walla jur bi mooy jàpp ci loxo bi andi ko ci ci centre bi. waaw loolu mooy maa ngi ñëw ci deuxième voilà, catégorie d'enfant bi xam nga sànq wax naa mm. mm. une catégorie d'enfant mais enfant en conflit avec la loi am na enfant témoin am na enfant victime mm. mais deuxième catégorie d'enfant bu mu doon bëgg a mooy l'enfant en danger parce que l'enfant en danger mooy xale bi nga xam ne njàngam wérgu wérgu yaramam kiiraayam wala kaaraangeem dafa am jafe-jafe en général cas yu mel noonu soit dañu koy signaler ñu dem jël ko en charge ou bien parent ci boppam mooy njëkk ñëw bu ñëwee day def lu ñuy wax demande d'assistance éducative mm-hmm. mu am benn procédure day jox extrait xale bi joxe carte d'identité def benn demande ñu boole dossier boobu jébbal ko président tribunal pour enfants kooku jox ñu soit transmis maanaam autorisé ñu mm-hmm. ñu ñu def enquête ci situation xale boobu bu ñu defee enquête pare on prend on donne indécision décision dañ naan président yaakaar nañ ni kii demande centre war na fa mën a jàng métier bu baax wala su fekkee ne loolu jaru ko aussi li ma waxoon sànq dañ koy bàyyi ci biir cadre familial mais continuer di ko suivre pour di simplement que ñun soit parent bi mooy gis ne am na jafe-jafe ci nu muy yare doomam mu jóg ñëw ci ñun ou bien ñun suñu bopp benn enfant nekk en situation de danger maanaam nekk un enfant maltraité wala un enfant victime d'abus sexuel un enfant qui a un problème d'extrait de naissance ñu signalé ñu ko ñu jóg xool nan lañu koy taxawoo ba nga xam ne jafe-jafe boobu nekk dina ci génn. Euh, foofu sax laa bëggoon ñëw léegi ci xale yi nga xamante ni souvent euh, dañuy dem ba ci biir seen jàng bëgg a yàqu parce que amuñ këyit te gis nañ ni euh, surtout ñu nekkee ci zone ruraux yi zone ruraux yi rural yi plutôt ñu si bari dañu am jafe-jafe. Euh, yooyu le euh, ban jéego yéen ngeen di def pour xale yi nga xamante ni amuñ këyit ñu mën a am këyit xale yi nga xamante ni seen waajur yi amuñ këyit mënuñ leen a déclarer pour ñoom ñu mën a am këyit souvent da ngay dem ba ci classe d'examen foofu ngay bloqué donc sa avenir yëpp nar a yàqu yéen ban taxawaay ngeen am ci boobu euh, pour jàppale xale yi mën a am seeni seeni këyit am seen extrait de naissance ainsi de suite. waaw Ndeye Comba foofu fi may taxaw rek mooy que service bi ma tudd sànq muy AMO. Mm-hmm. action éducative la protection de l'enfant en milieu ouvert dans les quatorze régions du Sénégal ñi ngi fa ak certains départements boo xoolee presque Dakar département yëpp am nañ ko Rufisque am na Pikine Guédiawaye Dakar yëpp am nañ boo xoolee également boo génnee Dakar euh, le département Tivaouane am na AMO. Mm-hmm. département de Mbour am na AMO en plus nag yeneen région yëpp nga xam ne Bignona également boo demee Ziguinchor par exemple Bignona am na AMO. Mm. Ziguinchor am na AMO. donc service AMO yooyu chaque année dañuy def liggéey bu mucc ayib ci mm. wàllu wutal xale yi nga xam ne seen njàng dafa nar yàqu. Mm. wutal leen ay kayit. bu ma jëlee exemple fi nga xam ne fi laa nekk muy AMO Guédiawaye daw rek lu toll presque ci ñetti téeméeri xale wutal nañ leen ay kayit. procédure bi naka lay demee exactement parce que xale bi woyu juróomi amul kayit naka lay amee kayit. waaw bu dee waajur bu amul kayit moom. Mhm. loolu vraiment des fois day compliqué. ñaari waajur yëpp bu dee kenn amu ci kayit. bu dee ñaari kenn amu ci kayit day compliqué parce que souvent jafe-jafe boobu dañ koy jànkoonte. bu dee kenn nag am na ci kayit. bu dee kenn am na ci kayit moom boobu mën nañ xool nu ñu négocier mais li gën a wóor daal mooy. bu mhm. dee xale bi amul kayit li gën mooy ñaari waajur ku nekk am kayit parce que dañuy jël photocopie carte d'identité papa ji photocopie carte d'identité yaay ji. Mhm. ak photocopie cadastre ñaari CD bu ko defee mu soogaat di jël dossier boobu dem mairie bu mu dëkk mu wut fa certificat non inscription de naissance. Mm. boobu la ñu boole ba léegi sax pour pour ne pas. Hmm. Euh, la fraude. dañuy gis la président du tribunal day naan na indi certificat d' accouchement. Hmm. pour wane carrément que c' est enfant qui est né au Sénégal. parce que hmm. dañuy gis léeg-léeg ci sunu réew yi nga xam ne ñoo ñu wër. ñu ñëw fii bëgg wutal seen doom fekk juddoowuñ fi. loolu des fois day am moo tax ñuy jël garantie yooyu yëpp pour que dossier bu ñu koy def mu mën a am li nga xam ne mooy. te souvent yeneen koy réussir xale bi am këyit. effectivement maa ne la sànq presque ay moo géej waaye def nañ lu man ñett téeméeri xale wutal nañ leen këyit daaw. mais su dee way yi amuñ këyit nag. waa su dee way juri am këyit papa ji yaay ji kenn amu ci këyit. loolu laay wax xale bi di jàng dem ba CM2 bu jàngam bloqué bar na def examen amul këyit. waaw bu fekkee ne way juri amul këyit li ñu man mhm. defar euh, peut-être euh, wax ko bu fekkee mën na def une demande bu def une demande ñu ñëw toog ak juge bi expliquer ko situation xale bi. Mhm. foofu am na ci juge yu bari vraiment dañuy dawal compréhension dañ ci jàpp ba xale bi am kayit. Mhm. mais des fois aussi loolu ñun su du nekkati sunu appréciation juge bi mooy apprécier. Mhm. mais yéen ay def démarche yëpp. ñun ñooy def démarche yëpp def médiation. dem waxtaan ak juge bu fekkee ne juge bi il est compréhensif à partir de ce mën na enrôler dossier bi mu defaral ko extrait mais mais bu nekkee euh, juge bi compréhension mën na ne na ah. man mm. lii dalul sama xel. Mm-hmm. donc xale bi du am. kayit du am ah, kayit jàngam dafay yàqu. jàng bi day yàqu. Euh, su fekkee na kenn ci woy juri papa ji rek moo am kayit wala yaay ji rek moo am kayit. waaw xam nga xamu papa ji rek par exemple bu amee kayit. Mm-hmm. juge mën na ne à l'audience par exemple ay audience lay doon. Mm-hmm. mën na ne à l'audience dinaa jël dossier bi mais à l'audience ne yaay ji ñëw. taxaw euh, comparaître. bu comparaître mu am lu dal xelam là mun na bàyyi dossier bi jàll. Hmm. bu dee c'est le contre yaay jee am kayit papa ji amul kayit. boobu aussi même chose. même chose même chose faaw ñaar ñëpp taxaw. waaw mais de toutes les façons juge bi mooy mooy. c'est c'est taxaw le dernier mot en tout cas revient au juge. moom mooy xool lu lu lu doy. ba xam preuve yi ñu appuyer et tout. effectivement pour nga donc côté boobu yéen a ngi siy def jéego yu am solo. Mhm. Euh, protection euh, sociale jëm ci wàllum euh, xale yi ak tamit jëm jëm ci xale yi les jeunes au Sénégal. yow tey jii euh, boo ci doon wax lan nga ñu ciy wax exactement est-ce que les jeunes am nañ vraiment une protection sociale fii ci Sénégal. waaw am nañ une protection sociale. Mm. mais dafa am ay lu ci bëri loo xam ne mm. dafa sooxe. Mm. parce que sànq maa lay wax suñu nekkin ci biir ministère de la justice. parce que malgré liggéey bu mucc ay boobu ñuy def les moyens manquent da ngay xool un service ay xam nga dañ ne action éducative en milieu ouvert. pratiquement ñun li ñuy toog ci bureau bariwul dañuy génn tout le temps rares sont les services AEMO yi nga xam ne au Sénégal am nañ oto boo xam ni sax bu ñu bëggee génn mën nañ ko jël génn. Hmm. donc amuñ moyen pour liggéey amuñ mooy amuñ moyen beneen aspect bi ci topp mooy les ressources humaines dafa manqué trop trop trop le matière d' éducateur spécialisé boo xoolee au niveau international dañ naan la euh, éducateur bu nekk sept xale la war a suivre. Hmm. maanaam juróom-ñaari xale. Hmm. mais ñun bu ñu xayma xool suñu rapport statistique yi ñu produire chaque année dañu gis ne chaque année benn éducateur sénégalais mi ngi topp lu mat ñeent fukk ak ak juróom. Mm. pour wane ne. ñun surcharge de travail bi ñuy def. Mm. c'est extrêmement euh, grave. et loolu dafa waroon am ay mesures d'accompagnement au moins état bi xaw ñu motiver tuuti bu ko defee ñu mën a def suñu liggéey mais boo xoolee depuis ñu sos syndicat ba léegi. Mm. ñu ngi daw ci ay revendications. comme lan ngeen di revendiquer exactement comme li ñu tuddee fonds commun par exemple mm-hmm. xam nga buñ ne fonds commun de la justice mm-hmm. travailleur de la justice yëpp am ko ba mu des ñun dafa nekk lu garaaw mën nañ tuddee sax discrimination marginalisation te toog nañ ci ay yooni yoon ak ki nga xam ne mooy ministre de la justice mm-hmm. garde des wax ko suñu situation heure buñ ko waxee mën nañu c'est légitime mais c'est légitime te du def benn effort pour régler situation boobu finalement def ñuy yóbbu foo xam ne nii ëllëg mën nañu dégg ci ay grève ak yeneen yu demee noonu. Mm, parce que dégg guñ leen ci yëngu-yëngal yi de. waaw non yëngu woon nañ sax. Mm-hmm. Mm-hmm. mois de décembre yëngu-yëngal comme waa sud juste ni ñuy def. waaw nañ ko mois mm-hmm. décembre passé. parce que def nañ fi grève ay grève de fois soixante douze heures. bi ñu paree loolu ñu wooñu wax ne ah ñun kat ñu ngi ci yéen may leen ñu fii diir dinañ régler seen situation. mais li tax tey ñu ngi toogaat fii encore di wax ci loolu mooy wane que ne li ñu waxoon noonu ne dina ko régler dara sottiwu ci fan yële ci ginnaaw nag gis nañ conseil des ministres ñu ne wax nañ programme de modernisation de l' éducation surveillée maanaam promesse mais promesse boobu ñun dañu jàpp ne c' est dans le cadre général. Mhm. dañ ko war a spécifier ci li nga xam ne mooy revendication yi nga xam ne moom la syndicat bi teg parce que ñun dañu jàpp ne fonds commun boobu ma tudd sànq mën nañ ci am. li nga xam ne mooy indemnité de participation à la judicature. war ngeen ci am. war am nañ ko mais dafa néew. Mhm. ndax fu yeneen agent yi amee ay cent quarante mille ñun soixante dix mille lañ fa am. Mhm. sunu chef de service amul benn chef de service bu am li nga xam ne mooy indemnité suggestion te administration sénégalaise képp ku ñu fi jox ay responsabilité mhm. am na indemnité suggestion bu ñuy teg sa loxo. pour au moins motiver la nga toppatoo sa liggéey nam def ko na mu waree mais ñun amul suñu benn chef service bu am loolu. le corps des inspecteurs bi ñu créé récemment aussi concours bi ñu ngi ko defoon premier promotion mi ngi génnoon depuis deux mille quinze boobaak léegi kenn organisé wul bi loolu xam nga kon ñun dañuy bëgg a hypothéquer suñu carrière mmh. parce que loolu lañ amoon pour plan de carrière mais aujourd'hui état du Sénégal dafa nekk di ko salfaaje di ko saboter parce que mënuñ comprendre promotion boobu génn depuis deux mille quinze on est en deux mille vingt bi nekk na lu doy waar te boo xoolee sax inspecteur yooyu ñu formé woon bañ leen di jël presque defu woon concours dañ leen sélectionné woon mhm. te ña ñu sélectionné woon presque tey ñëpp dem nañ à la kenn moo ci des kenn moo ci servir léegi direction dañu obligé sax jël ay inspecteurs intérimaires et pourquoi mënuñ ko organiser concours bi concours bi nit ñi def formation génn nekk inspecteur donc c'est des questions yoo xam ne nii pose nañ ko à maintes reprises au hmm. garde des sceaux ministre de la justice mu leen wax exactement def toujours des promesses yoo xam du ko respecté toujours des promesses yoo xam ne du ko respecté jot ngeen ci wax ak ministre bu bees bi maître Malick Sall maître Malick Sall hmm. ñun bañ commencé sax depuis temps Aminata Touré la woon hmm. Aminata Touré jàll ñeneen ñi fi jaar ñëpp Sidiki Kaba ah Ismaïla Madior Fall ki nga xam ne mooy euh, maître Malick Sall rencontré nañ ko presque à trois reprises deful ko l'état des lieux de la situation mais amul benn jéego boo xam ne ni may wax ak yow nii tey def na ko ci mu nekk loo xam ne nii nag ñu ngi koy ñaawlu. au niveau kon seen yëngu-yëngal bi des na de. de dégg ñu yëngu-yëngal kay moom kay dinañu dégg léegi ci fan yu néew. parce que ma ne des na de. <laughs> Hmm? non dinañ yëngu-yëngal sax nu mu nu mu war a dinañ ko def. parce que mhm. xam nga li may wax toujours. Hmm. kilifa bu waxee ñun dañ naan nañ ko déglu ba xam mais wax na waxaat waxaat. dara sottiwul dara. dara sottiwul léegi nag lépp loo xam ne yoon may nañu ko pour ñu utiliser ko pour xeex pour situation bi changer dina ko def incha allah. léegi euh, Baba Lissa Ndiaye naka nga gisee euh, ñàkk euh, bi nga xamante ni euh, ñàkk nañ ko respecté ak ak yelleefu euh, tout tànk yi fii ci Sénégal ban jàngat nga ci am. waaw loolu lu ñu ñaawlu la. waaw parce que réew bu mel ni Sénégal ratifier li nga xam ne mooy convention des nations unies relative aux droits de l' enfant ratifier li nga xam ne mooy la charte africain des droits et du bien-être de l' ak yeneen textes yi nga xam ne yëpp ñi ngi protéger xale mais terewul xale yi ñu ngi continuer di souffrir maanaam état bi dafa dese li ñuy wax volonté politique. Mm-hmm. de na ay kii yu bari mais pour ñu mettre ko en œuvre mooy problème. parce que tey. Mm-hmm. c' est vrai ñu ngi doon def ay ay effort yu bëri par rapport ak li nga xam ne mooy les enfants talibés. Mm-hmm. ñu gis ne ñu ngi yalwaan ci mbedd yi à chaque fois def nañ fa ay effort mais ba léegi le phénomène persiste. mais ba ban effort lañ def ci côté euh, xale yi yalwaan. def nañ ci effort. mooy parce que la xale yi ëpp ci mbedd mi baaba. waaw li may wax effort mooy. Mm-hmm. Mm. Eh, ci fan si gën a am mën naa mën naa wax sax bi mbas mi commencé ak léegi la ko gars yi commencé woon. Mhm. c' est vrai que yaa a y' a yoo xam ne amoon na fi mais peut-être li ñu def bi mbas mi commencé léegi moo gën a fës parce que doon nañ organiser ay opération de retrait de ces enfants là def nañ ay retrait yu bëri def ay retour en famille yu bëri semaine passée rek presque laa jóge Guinée. Mhm. yóbboon ay xale foofu. Ah mais est-ce que li ngeen di wax nii am ngeen si ay preuve que am na xale yu ñu retiré yóbbu leen seen kër ainsi de suite lan moo koy prouver parce que man pour man xale yi tey lañ ëpp ci mbedd. non les statistiques sont là. Mhm. parce que ni may waxee ak yow nii. ñaata xale ngeen jël yóbbu Guinée. comment ça s'est passé exactement première phase c'est cinq mille trois cent cinquante enfants environ. Mhm. moom lañ retiré yóbbu leen dans leur famille. fan. am na fii biir Sénégal am na aussi en Gambie en Guinée. Conakry en ah, Guinée-Bissau. lu leen jëlee Guinée ba Gambie ba indi leen Sénégal. seen sëriñ ñoo leen andi wala seen parents yi. pour ñu yalwaan. dañ leen di andi dénk leen sëriñ bi pour sëriñ bi jàngal leen alxuraan mais en réalité sëriñ boobu di leen jàngal alxuraan dañ leen di loo moo tax souvent man du ma bëgg sax di leen wooyee taalibe. Mhm. parce que en réalité du ñu ay taalibe c'est des enfants victimes de traite. exploité mhm. exploité dañ leen di jël ne sas leen. bés tey na nga andi cinq cent na nga andi mille francs te presque taalibe yi ñu ci jàpp yëpp waxtaan ak ñoom ci fànn boobu. Mhm. dañuy wax exactement le montant bi nga xam ne moom la leen sëriñ bi doon wax ñu. andi fixé par jour fixé par jour. cinq cent ou mille te boo ko andiwulee sëriñ bi da lay mbugal loolu am nañ ci ay firnde yu leer. Mhm. parce que. mais ba ban processus ngeen def ba jël xale yooyu euh, delloo ñeneen ñi fii Sénégal ñeneen ñi ngeen yóbbu leen Gambie wala Guinée. waaw processus bi naka la demee da ngeen di ñëw rek forcé wala. non xam nga état du Sénégal. dafa am li nga xam ne mooy stratégie nationale de protection de l' enfant. stratégie boobu daf ñu permettre ñu créer dans chaque département. li ñuy wax mm-hmm. comité départemental protection de l' enfant. comité boobu nag dafa regrouper ay acteurs yu bëri. Mm-hmm. y' les acteurs de la société civile y' a les services étatiques y' a aussi les les les ONG. Mm-hmm. ñooñu ñooy lëkkaloo. organiser li nga xam ne mooy des opérations de retrait nga xam ne ministère de la famille euh, de la protection des enfants moo ko mm-hmm. initié woon mm-hmm. stratégie bi noonu teg mooy chaque CDPE ci département bi mu nekk day organiser ay maraude day identifier aussi les daara yi nga xam ne taalibe yi dañuy nekk ci conditions yi doy waar bu ko defee en collaboration avec le préfet ñu woo préfet comité bi réunir ànd ak police dem jëli xale yi au niveau de Guédiawaye bi ma nekk ñun danoon xëy yore suñu bus ànd ak police xale bu ñu gis nga yalwaan ci mbedd bi ñu jàpp la ngeen jël dugal la ci oto bi yóbbu la centre amoon nañ fi centre sauvegarde Pikine Guédiawaye centre sauvegarde Cambérène am na fi euh, centre Guindi centre euh, Empire des enfants centre centre ANAT mhm. yooyu yëpp nekk ay centre yoo xam ne bu ñu naan jël xale dañ leen yóbbu placer leen foofu encadre leen dafa leen prise en charge ba identifier seen famille. Mm. bu ñu identifier famille identifier famille bi ñu programmer le retour en famille boo xoolee leen non sénégalais. kon kon moment boobu moment joxoon na leen assez de moyens euh, état bi plutôt. waaw y avait assez de bon on ah, peut pas dire de la mais dafa tane woon rek mm-hmm. dafa tane woon parce que doon nañ gis ne quand même xale yi dañoo exposé yokkoon nañ prise en charge ba def mille cinq cent par enfant. Mhm. par jour. loolu état xawoon na fa def ay effort mhm. daan na jël en charge aussi li nga xam ne mooy retour en famille bi mais ba léegi euh, loolu dafa nekk loo xam ne nii man dama jàppoon ne c'est c'est très lourd. Mhm. mënoon nañ gën a peaufiner cette stratégie là ba telle sorte que. mooy yi ñu ciy def du bari te dinañ Euh, atteindre suñu objectif. mais pour yow Baba sa Faye lan moo mën a euh, dindi carrément xale yi nga xamante ne ñu ngi taxawaalu ci mbedd mi 24 heures sur 24 euh, peut-être sax mënuñu wooyee ñëpp ay taalibe mais enfants des rues yi naka la ñuy def pour ñu bañate gis xale yi di taxawaalu ci mbedd mi euh, 5 heures wala 6 heures ba 22 heures 0 heure ci mbedd mi kenn xamul taalibeeg ñëpp jaxasoo. qu'est-ce qu'il faut exactement. première chose il faut que état Sénégal xam mbiru xale yi du politique mbiru xale yi dafa am ay techniciens yu ko yore nañ jël techniciens yooyu jox leen ko. muy hmm. les travailleurs sociaux et les éducateurs ñoo ñu ku leen jox mbir mi dinañ ko liggéey. deuxième chose aussi kon applique les textes parce que mendicité c'est interdit c'est interdit par la loi. pourquoi mënuñu def ku yalwaan loo xale ñu jàpp la teg la loxo parce que état day jouer double jeu actuellement bugguma lii am. te deful li nga xam ne. bu ko defee dafa dafa sensible ci beneen côté bi. dafa sensible parce bu fekkee dangay ngay tere yalwaan maître coranique yi jóg taxaw ne voilà lii lañ fekk. Euh, moom lañ fi bàyyi ainsi de suite xale yi. dañuy xam nga xam nga xam nga yalwaan. c'est vrai que wax nañ ko ci l'islam. Mhm. mais daf dañ ko teg ci ay conditions. mais conditions yooyu nag fi mu toll nii nit ñi dañ ci profité rek. Mhm. ne yalwaan lu dagan la. Mhm. mais am na ñoo xam ne waruñu yalwaan. état nag lu mu war a def actuellement man dama jàpp ne li ñu doon wax ci njëlbeen ay programme modernisation des daara. Hmm. def des daara moderne loolu buñ ko ñoŋaloon fexe ba affaire bi dëgër daara bu ci nekk ñu fekk la fa nga nekk identifier la nga am récépissé ñu xam ne fii daara tel moo fi nekk personne sàngam moo ko yore. Hmm. ñu soutenir la je pense que di nga dem ba toll foo xam ne nii sax yaakaar naa dootoo yelwaan loo xale yi. parce que ñi ñu ci waxtaan ak sëriñ daara ñi ñu ci waxtaan ak ñu mhm. bëri mhm. dañ naan ñoom dañuy yor xale yi di leen jàngal te waajuru xale yi duñ fay dara donc loolu moo leen c'est normal xale yi génn dem wuti andi loolu moo leen di poussé te da ngay gis sax xale yi des fois boo waxee ñoom pour ñoom le fait que ñuy yalwaan lu normal la mais daan nañu fi wax ay modernisation des daara si de suite waa dafa des mhm. dafa des maanaam daal dafa des ñu am ci volonté carrément parce que nañu def une cartographie xam nga ba léegi am na des daara yu existe yoo xam ne sax état xamul fu ñu nekk. Mm-hmm. bu ñu defee une bonne cartographie identifier daara yi bu ci nekk ñu xam fi mu nekk fexe ba sëriñ bi aussi régulariser wut kayit. Mm-hmm. ñu xam ne daara bi moom moo ko yor fii la nekk heure buñ ko soxlaa mën ko fekk foofu bu boobaa pour moderniser dina yomb te souvent aussi li li li maam Abdou Aziz doon wax rek. parce que mm-hmm. nee na. daw daan wax naa ñiy bindee mbindum ndeyjoor ak ñiy bindee mbindum càmmooñ nañuy waxtaan. Mm. man dama yaakaar ne l'implication des maîtres coraniques dafa des. parce que il faut que ñu leen di woo di gën a toog di waxtaan ak ñoom c'est vrai que xaw nañ organiser wu am nañ seen association yëpp. Mm. mais dafa des. dafa am ñoo xam ni sax da ngay toog de des maîtres coraniques di leen waxtaan ci côté boobu mais dinaa ñoom yëguñ sax ne association bi am na. ca veut dire qu'il un groupe qui boo xam ne ñoom ñooy wax association maître coranique. Mm-hmm. mais dafa am ñoo xam ni c'est si leen marginaliser. gisuñ ci seen bopp carrément gisuñ seen bopp. donc bu ñu fexe woon ba ñoo ñëpp regroupé wu nag nekk benn. bu boobaa mbir mi day gën a yomb. état mën mën di leen jàppale xale yi mën di bañ a génn. ci effectivement effectivement. ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en la tey jii Ndeye Comba Moreau euh, dalal Baba Lissa Ndiaye nekk secrétaire général bu syndicat national des travailleurs. en éducation spécialisée ca ministère de la justice dina la laaj bu fekkente ni xale bi wala jeune bi souvent ki nga xamante ni amagul dix-huit ans di age de la majorité dafa am jafe-jafe ak justice maanaam comme mag ni muy demee faat wala sàcc wala agressé wala je sais wala ñu fekk ci moom yamba wala muy drogué wu comment ça bu fekkee kaawu xale bi la naka lay demee yoon dafay def liggéeyam comme ni mu koy defee ak adulte bi wala dafa am beneen processus foo xam ne fa la ñuy jaarale xale yi Comment ça se passe souvent au, Sénégal, il a une justice spéciale mmh. pour les mineurs. Pour les mineurs. waaw parce que boo xoolee xale bu defee lu yoon tere. Hmm. moo xam ni nga ko waxee tux yàmbaa la. Hmm. moo xam sàcc la. moo hmm. xam crime la. à chaque fois dañuy privilégier une autre alternative que la prison moo tax sax boo xoolee la procédure est un peu spéciale bu ñuy jëlee xale bi. Mm-hmm. ba defee déjà xale bi suñ ko jëlee fuñ ko yóbbu. suñ ko jàppee à la police. Mm-hmm. pour ñu entendre ko il faut que éducateur bi taxaw ak parent dañu woo waajur yi déjà. dañu woo waajur yi mënuñ ko. entendre buñ gisul waajur yi nag. waajur buñ ko gisul. parce ñu nekk ci mbedd mi. <laughs> ñun ñun ñooy substitué wu aux mm-hmm. parents. buñ gisulee waajur bi éducateur mooy taxaw rôle parent bi bu taxawee léegi lu muy privilégié c'est la médiation. avec euh, la police mooy li ñu wax médiation pénale te ma tudd ko sànq ci njëlbeen. Mm. médiation pénale boobu bu nag ci la ñuy soog a déférer xale bi. yóbbu ko fan. yóbbu ko par exemple y a dans le prisons prison pour enfants. Mm-hmm. te dans prison pour enfants fan la nekk. Euh, am na forbe forbe am na. Mm-hmm. boo jëlee fële Cap Manuel am na carré des mineurs. Mhm. parce que prison yi dafay am carré des mineurs. Mhm. parce que ñu leen jaxase ak. ak ak mag waaw waruñu leen jaxase c'est vrai que nag des na. mooy ñu amagul dix huit ans. ñu amagul dix huit ans. Mhm. les moins dix huit ans am benn seen benn carré. c'est vrai que am na yenn région yoo xam ne amaguñ ko nag. parce que carré des mineurs dafa war a am dans chaque prison du Sénégal. am na yenn région yu ko amagul te loolu dañ koy déplorer aussi mais bu ñu jàppee xale boobu yóbbu ko foofu. dañ koy programmer à l'audience mhm. bu ñëwee à l'audience audience boobu tamit du audience publique c'est à huis clos mhm. bu président quoi amul yi ñëpp ñëw ñëw ku mhm. nit ñi duñu assister parce que président tribunal pour enfants mooy toog procureur greffier éducateurs yi ak parents xale bi ñoo ñoo fay nekk keneen du fa nekk léegi nag euh, boo xoolee le juge pour enfants balaa mu jël décision ne naan à chaque fois day laajte les observations de l'AEMO mhm. et AEMO souvent balaa audience bi am sax def na descente ci cadre familial xale bi mhm. pour avoir des éléments mhm. liés au cadre familial avoir aussi des éléments liés à la personnalité de l'enfant parce que loolu da koy permettre devant le juge mu mën a comprendre parce que ñun du ñu ay article rek. Mm-hmm. boo demee le le juge ay article rek la lay wax. Mm-hmm. mais ñun dañuy xool les aspects psychosociaux. Mm-hmm. yoo xam lan moo mën a pousser xale bi ci. situation bi exactement lan moo mën a tax xale bi. commettre act boobu. bu ko defee ñu wax ko juge bi moom tamit day comprendre à partir de ce moment nag day jël benn mesure boo xam ni c'est c'est une mesure euh, de liberté surveillée. parce que en matière de justice pour mineur moom la ñuy wax la condamnation c' est l' exception. maanaam c' est rare ñu condamné xale bi. c' est rare ñu condamné xale bi. ak lu mën di def. ak lu mën di def c' est ñu condamné ko c' est vrai que des fois on est obligé mais su ñu condamné aussi boo xoolee souvent euh, au niveau de la peine bu dee dañu prévoir cinq ans pour l' adulte. Mm. pour le mineur on on prévoit la moitié. la moitié waaw parce que loolu dañuy bëgg a sauvegarder. waaw loolu moom en matière de justice euh, pour mineur da euh, souvent noonu la rek mais mineur bi nga xamante ni dañ koo condamné ne dafa faat waaw ku faat en général aussi waaw loolu xam nga am na lu ñuy def sunu liggéey mhm. li ñuy wax enquête de personnalité souvent dossier boobu dañ koy mettre en instruction bu ko mettre en instruction dana le juge d'instruction souvent dinañu laaj ne defal leen ma enquête de personnalité sur tel mineur. Mhm. parce que daf def crime ñun suñ biir enquête en général on découvre la véritable personnalité du mineur mm-hmm. wax mmh. aussi quest qui a poussé le mineur mmh. à commettre le crime mm-hmm. à de ce moment juge bi day gën a comprendre dossier bi donc euh, dinañ gën sax parce que dinañ gën a améliorer loolu. parce que mm-hmm. ñun bëgg nañ dem ba tool foo xam ne nii cas mel noonu su amee. su amee au ñu jël xale bi yóbbu ko prison muy xaar. dañ koy yóbbu ci li ñuy wax centre de protection sociale. jàppale ko. waaw loolu ñu ngi koy ñu ngi koy projeté dans dans dans les projets de l'éducation surveillée au Sénégal. Mm-hmm. ñu ngi prévoir ces centres de protection sociale nga xam ne mineur bi nga xam ne dafa commettre un crime wala un un kii boo xam ne ni infraction une infraction boo xam ne nii juge mënul jël décision daar daar ñu placé ko foofu ba juge bi. en attendant juge bi di jël en parce que. mais bu fekkee da nga da nga faat carrément souvent comment ça waaw mooy mooy li mu wax sànq rek. dañ koy dañ koy tëj dañuy condamné xale bi wala dañ koy bàyyi ak. liberté surveillée non non non dañ koy téye. dañ koy téye xale bi dañ koy téye parce que c' pour sa sécurité. Mhm. bu dee ki mu faat ñoo bokk koñ yi lañ koy mhm. mhm. mais dañuy ragal ñu venger donc pour sa sécurité dañ koy yóbbu au carré des mineurs. mais d'habitude ban genre condamnation ñaata année lañ koy tëj ainsi de suite. bon man yi ma ci gis bon très souvent. Mhm. dinañ tëdd peut-être ay deux ans un an ba affaire yi xaw a calme tuuti. ñu door ko bàyyi ñu door koy génne. te souvent sax buñ ko génne dañ ko yóbbu automatiquement dans le cadre familial. Mhm. ñun dañ koy jël dans nos centres pour. téye ko foofu encadré ko jàngal ko métier. mais est-ce que seen centre yooyu am na am na jumtukaay yi mu war a am. pour ouais, xale yi waaw centre yi bon mhm. ñu ngi leen di renforcer ah. surtout mhm. ren. Euh, parce que état mi ngi ciy liggéey. mi ngi leen di jox assez de moom mun nañu wax ne état mu ngi ciy liggéey mais bien vrai que nag ressources humaines toujours ça pose problème man toujours damay wax ressources humaines c' est des mhm. parce que l' du Sénégal a tardé un peu. a accusé beaucoup de retard dans le cadre du recrutement des éducateurs. parce que boo xoolee dañu toogoon benn ngi ñu doon former fële jékki-jékki ñu jóge ñu foofu jëleeñu foofu yóbbu ñu CFJ centre formation judiciaire. Mm. mais ci laps de temps boobu am na cinquante quatre éducateurs yoo xam ni actuellement ils ont leur diplôme mais recruté guñ leen ba léegi ñu nekk dans une situation très difficile. Mm. ba direction sax pour les aider un peu dafa defoon vacation. jël leen comme ay vacataires mais ci vacation boobu sax dañuy am problème parce que souvent seen salaire day tardé. dañu toog ay deux trois mois d'arriéré de salaire. Mm. Donc les ressources humaines dans ces centres-là doivent être renforcées. Ensuite, le matériel. ren tane na lu mën a tane na c'est parce que ren yokk nañ budget centre par rapport parce que parce que yokk nañ yokk nañ budget centre yooyu donc on on sent qu'au niveau du ministère de la justice actuellement parce que dañu ne léegi la des DSPS est un programme dans le ministère hmm. loolu peut-être moo tax nga gis changement yi effort yi nga xam ne mi ngi ñëw loolu bu ñu ko defee dina permettre centre yooyu am matériel boo xam ne nii dinañ ci mën a encadrer mineurs yooyu. voilà temps bi dab nañu pratiquement jeex na peut-être dernière question loo xalaat ci seen ministre tutelle maitre euh, Malick Sall. ah en tout cas en tout cas ñun moom. <laughs> Mhm. <laughs> du point de vue syndical ñu ngi koy déglu. Mhm. ñu ngi koy déglu parce que moom moo ñu promettroon. mais ban note nga koy jox moom maître Malick Sall. Euh, su ma ko waree noter de passage. parce que gars yu bëri dañuy dal ci kaw ah. peut mieux faire. peut mieux faire <laughs> <laughs> faire parce que. Mhm. ñun bu ñu xoolee ñun euh, lu ñu seq ak moom depuis le 16 juillet 2020 la toog ne ñu seen problème fonds commun c'est déjà acté. Mhm. ñu jàppoon ne balaa ñuy yegg si fii tey dina régler problème bi. ak yeneen yi nga xam ne revendication yi nga xam ne ñoo nekk ci biir yëpp mu laajoon ñu ñu liggéey ci def ci ay texte proposé ko mais ba léegi dara bougé wul kon buñ ko doon may note tey ah yaakaar naa du doon note bu baax daal. <laughs> du doon note bu baax <laughs> kon Baba sa ñu bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi waxtu bi dab nañu peut-être on aura l'occasion de faire d'autres émissions incha allah. effectivement Ndeye mhm. Comba ça nous mhm. fera toujours plaisir d'être euh, dans votre parce mhm. que. nekk na moyen boo xam ne dañuy permettre ñu gën a waxtaan ci li ñuy def. Mm. ci li ñuy liggéey. nit ñi gën a xam askan wi gën a xam. Mhm. loolu nekk lu lu ñuy rafetlu à chaque fois. Euh, di la sant di la gërëm également parce que c' est vrai que tey xaw naa <laughs> nekk en retard. mais man nag maa la yéex a contacter. Ah, c' est vrai malgré mhm. loolu dawal nga mhm. compréhension. xaar nga ma ñëw. ñu def suñu émission y' part problème. Euh, di am mbégte également euh, di di di di waxtaan ak askan wi par rapport à li ñuy liggéey di nuyu vraiment l' ensemble des auditeurs de la rajo. Euh, nuyu tout le personnel également de la rajo di la jaajëfal encore une fois di wax à très bientôt merci beaucoup ñu koy remercier bu baax a baax euh, Baba Liss Ndiaye nekk secretaire général bu syndicat national des travailleurs en éducation spécialisé ci ministère de la justice di leen remercier yéen suñuy auditeur di remercier euh, Diaw Diallo bi nekkoon ci technique bi émission bi mën ngeen ko dégluwaat ci suñu site internet rewmi.com wala ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel ñu leen di remercier bu baax a baax ba samedi prochain incha allah ci beneen émission euh, beneen thème ak beneen invité